li suñu engagement yàlla subhanahu wa taala mi xam lépp man lépp moo wax ni walaw la dafaau llahi naasa baaduhum bi baad la fasadati l su fekkente ni woon ku jóg di def lu dul noona amul ñeneen ñu taxaw ci sa kanam ngir jaamaarlook yow bala ngay def du sotti kon àdduna bi day tukki lii ma wax nii ma ngi topp ci xeex bi amoon diggante Jaaluut ak Daawud kon lii farata la ci jullit yi ñuy boole seen kàddu di boole seen doole ngir aar askan wi surtout ci wàllu jikko ak ci wàllu nekkin ñun nag dañuy sant yàlla bu baax subhanahu ndax comme nin ko waxe woon jumaa ji tudd mosquée inachevée ba mu sosoo ba léegi ci loolu la taxaw tudd nañ fi ay kilifa yu mag ñu ko ca yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla yóbbu ci àjjana ya gën a kawe fii lañ daan toog ak ñun ci ay année quatre-vingt ñuy xeex lu bon lii kon du ñu rus ñoom ñu ñëwaatoon fekk ñuy daje fii di am même taxawaay loolu mbir mu am solo la parce que lépp loo gis rek releef daf ci am solo nit kii day dem dooleem di wàññeeku xelam di wàññeeku man-manam di wàññeeku la mu gëm mën naa yokk waaye bu geestoo gis ni am na ñoo xamante ni bii am nan doole am nan xel am nan taxawaay nekk ca loola sa xel ndey dal waaye dama leen di wax rek ni ay ndaw ngeen am ngeen engagement bi ngeen am waaye mag ñi fi nekk itam même engagement que yéen lan am même engagement lépp loo nga xamante ni bii day ñëw ci réew mi di di déstructurer réew mi li nga xamante ni bii moo tee réew mi ca mooy ay jikko yu rafet yi nga xam ni dañ ko fee fekk du ñu ñoo ko liggéey mën na am ñin ko jëlee ci ñoom sax du ñoom ñoo ko liggéey man lu sore sori la puso bi du ñu nangu mukk mu réer ci suñu loxo waaw donc képp ku bëgg a jóg jàpp ni réew mi am nga occasion wala am nga man-man buy tax nga imposer fi ay góor jigéen ak yu bon yooyu nga xamante ni moo fi nekk dan lay xamal léegi yaa ngi perdre sa temps en tout cas li mu wax moom ma ngi fi te ñun ñëpp nag yàlla doon sukkandiku te kuy xeexal yàlla sukkandiku ci yàlla kenn mënu la waaw ñu ngi am contenté di renouveler suñu engagement par rapport à tout ça di sant xale yi bu baax di leen gërëm di sant itam xale yi nga xamante ni bi ñoo ñu wuutu fii ci yi mosquée inachevée ay jàmbaar la na ngeen leen ñaanal yàlla jàppale leen yàlla dimbale leen te ngeen bàyyi xel ci jàkka ji bàyyi leen xel bu baax a baax ci moske mosquée inachevée yéen a ngi fàttaliku il y a am na benn campagne buñ fi buñ fi jógaloon wax ni jàkka ji dañ koy màbb xaw ma ndax yéen koy fàttaliku wala dëgg dara amu ci woon mais ay nit ñoo ko sosoon pour yàq xelu nit ñi pour gësëm pour def leen jàkka ji kenn du ko màbb dafay taxaw ba ilaa yawmi din insha allah akbar bokk yi kaddu yu gàtt rek dañu fi ñëw di teewal xalifa bi Thierno Bachir Muntaka nga xam ne moom itam taxawaayam mooy taxawaayu turandoo baayam sëñ Muntaxa Bachir yi nga xam ne moom itam jël naa ay jéego yu rafet ci wàllu tere lépp loo xam ne sariya tere na ko ci dëkkam bu tedd bi mooy Tuuba foofu nag ñun ñëpp kenn ku nekke xalifa nga fi nga nekk ci sa kër ci sa jumaa ci sa daara ci sa dëkk ci sa mboolo ci sa daayira aleyna masuliya azima dañu am responsabilité bu tedd bu diis dañu war a jëfee li nga xam ne moom la si mun muntaxaa commencé di ko defee ñun itam kenn ku nekk na fexe ba sàmm waa këram sàmm njabootam ci lépp loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala tere na ko su ko defee incha allah dañu ñaanal kuréel bi nga xam ne ñoo organisé bi taxawaay taxawaay bu rafet lañu leen di ñaanal yàlla na leen yàlla dëgëral yàlla yàlla def ñun ñëpp ci Sénégal suñu kaddu nekk benn kaddu suñu xel nekk benn xel suñu xol nekk benn xol yàlla nañu yàlla defal loolu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.